lii lii li ñu def may Maymuna defuñu ko may Maymuna dafay nekk erreur wala faute d'appréciation Sénégal lañ ko def en totalité parce que yaram bu nekk Sénégal yaram la yaram bu nekk dafa am importance bu mu am lépp dafay àndandoo yaram bi dox mais yenn sa yenn saa mën na dagg te di ko dund am na gaanagu millionnaire baal baleen maa xëcc di ma ko tuddee mais am na ko xam ne amul am na gumb gu milliardaire te ko am ñaari bët amul dara mais yaramu Sénégal ci boppam li nga xam ne mooy tax muy dox te moom la ñuy jukko ko contrôler bu accident mooy le cœur le rythme cardiaque loolu presse bi la toute nos libertés dépend de la liberté d'expression et de la liberté de presse mais nga boole ci ki attaque une journaliste c'est vrai que j'ai un cœur avec Maïmouna et comme toutes les journalistes femmes yu taxaw bëgg seen bopp mën seen métier parce que xamee naa leen vivre naa vingt ans ak ñoom te duñ mësuñu xaajalu ko parce que duñu duñu tàggoo wax naa leen ne nous sommes en en en en en véritable concurrence éternelle dañu war a ànd ak politique yi mais bu ñu demee ba pour des raisons politiques parce que raison bi du raison xaalisan ah. du raison sentiment politique moo tax ñu attaqué ko. sa émission politique lay animé te ñëpp la ci dalal ak boor boo mënti féete. wa mais mais mais dafay wax ci loo xam ne lii. ci direction bi mu jël dafa am ñu mu nuróol mais bokkuñu façon yow sa reportage ak keneen nuróowul mais mun a fait son public elle a fait des émules bi may mujj xooloog moom ay journaliste ngi toog moom mu di renkar ngi toog de Bougane ngi toog Mansour Sy Djamil ngi toog ma ne ko da nga war a jàpp da nga nekk exemple ci xale yu jigéen yi wax naa Mamadou aw a ko waxal may mun a amatul droit sax tox ci mbedd di tufli ñu ne may mu naa ngi tufli parce que exemple icône la xale yi jigéen yi dañ ko war a toppandoo nga am ku mel ni kooku ñu war ko dimbali war ko yëkkati war ko yaatal nga dem di ko jam paaka c'est de la lâcheté alors on ne peut pas avoir une liberté démocratique une liberté de scrutin une liberté de vote une liberté de parrainage sans avoir une liberté d'expression Parce que c'est la liberté d'expression, la liberté de presse qui montre les, les avantages et les inconvénients. Et principalement, moi, de la transparence. Tout à fait. La transparence démocratique dans notre pays a été un combat mené. Donc, principalement, nous, le PDS, de 1974 à 2000. Mais Louko Agali, mm-hmm. la presse en ligne, la presse instantanée, les résultats à l'heure, au moment, waaw ñu toll foofu ci réew mi réew mi toll fi mu toll nga ne dañ ci yokk daal dem di jami ni paaka c'est de la lâcheté et voilà voilà un mouvement boo xam ne bi nag mhm. c'est le mouvement qui doit réunir tous les politiques on peut ne pas être d'accord pour la date des élections pour la suppléance ou la vacance mais la liberté de parler am fooy waxee fan koy defee dañ koy tëdd ku nekk rajo da ngay dem TFM wala nga dem Jakaarlo je l'ai dit au ministre des finances ne ko j'ai été très content à ce que tu viennes passer trois heures de temps à Jakaarlo c'est un courage donc Maimouna ak journaliste yu jigéen yi ak ñu góor ñi il est temps que tous citoyens sénégalais militants des partis politiques nous nous réunissons sur la liberté de presse bu amul suñu réew mu ngi mu ngi ci guuta mu ngi ci guuf dara du ko ci génne et et j'ai un peu excusez-moi baal leen maax mais maa ngi leen di masawu wax leen ne aussi c'est pas seulement de parler mm-hmm. il faut abandonner les micros et les plumes et sortir pour ça pacifiquement